di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex di leen dokkeel ci koor gi di siyaare baax sëriñ Ousmane ak mboolem borom xam-xam yi ñu àndal jotaay bi euh, sëriñ Xaadim Mbàkke Cheikh Mourtada waaye Cheikh Ahmadul Xaadim di siyaare mboolem ñiy déglu ñëpp ak ñi nga xam ne ñoo koy gën a yaatal ba ñeneen di ci jot ci yeneen jumtukaay yi moo du Thiaré ak euh, sëriñ Amidou ñu ngi siyaare ñëpp euh, di jéglu baax nag ci yeex gee dikk ci waxtaan wi ndax photo yi defe naa démb lañ ko dugaloon Euh, muy euh, ñeenti mbir yu am solo yoo xam ne dañuy faj wéradi yu baree baree baree bari waaye nag xaasatan maanaam rawatina nag wàllu jafe-jafe yi nga xam ne mooy am ci néegu sëy ci wàllu néew doole ci sëy wala feebar ci sëy moo tax sax ñu indi ko nii tey ngir jën cee joxe benn composition boobu boo xam ne euh, noo xam ne boo ko boo ko composé ñoom ñeenti ñii day faj feebar yooyu nga xam ne mooy am ci néegu sëy yi euh, benn nit ki dafa néew kàttan wa ilaa day maas di bàyyi am na ñu muy dal comme ni ko nit ñiy laaja rek wa ilaa day yéex a yëg boppam lool ci loo xam ne nekkul tabiyon yi wala boog du yëg dara wala daana yëg sax waaye da yëgatut nam daan yëge wala sa daa yëgatut anam yooyu yëpp daal composé bi ñu leen di bëgg a jox day saafara wet googu lu ci baax la lool tamit teewul nag dana faj yeneen xeeti eh, tawat waaye bi ñu ci gën a yitteel daal nga xam ne moom lañ ci settee mu nekk lu spécialisé mooy wàllu jafe-jafe yi am ci néegu sëy yi muy góor muy jigéen euh, bala may dugg ci niñ koy composé nag ma leeral tuuti ci wet googu ndax feebar la bu yaatu boo xam ne ñu toll tamit jamono boo xam ne daanaka dañ cee daw jëm nga xamne bo boo ay garab sax nit ñi loolu lañu gëna a yittewoo daanaka motax ñi jaay garab ak ñi julli si yépp di wax ci wét googu rek lu ñuy wax rek tudda ci walu negu sey mom ndax dañu dem ba yu bare bari yaq nga xamne ñu ag ci jamono bo xamne euh day melni population yi bokoy sét euh ci réew mu nekk dañoo màcc jëm ci walu sexuel nga xamne ne daanaka bët bu set luy tax ñu gën ci manam ay temps mom lañuy gëssu Euh, xeet yu mel noonu loolu nag dafa jur ab conséquence yi ñuy jëfandikoo lay tamit jumtukaay yi appareil yi ñu dem ba yu bëri dugg ci ak télévision yi ñu xool ak nit ñi tamit jikkoo yi ñu waroon a jikkoo ak ni ñu waroon a soloo muy surtout si wàllu jigéen ñi col yi lislaam doon digle yooyu yëpp deñ euh, yooyu ne dafay jur ay tawat ci nit ñi léegi dañu am problème mu sadit yu baree bari ndax yu rafet yi ñuy xool ci télévision yi di ko xool ci appare yi di ko gis ci mbedd yi jigéen ñi kenn musorootut kenn sorootul jot awra yi ne ci biti loolu dafay rey sadiid yi dafay rey ya, hormone yi nekk ci biir yaram góor góor yi tamit am ci ñoo xam léegi ni ñuy soloo tamit dafay tiratation jigéen ñi ba ñoom tamit seen googu am ci problème ñu boole ko nag ay wéridi yi am na benn docteur bu ñuy wax john kislar bind na benn téere docteur américain wax na ca ne comme li dal ñoom population américaine ba yóbbu leen léegi sax ñuy jikkowoo jikko yoo xam ne dafa contre tabian maanaam dafa contre nature li li muy am yuy am yoo xam ne dawut am wala mënta warta mën a am mooy nit dem ba weesu fi doomu aadama dem di jëfandiku ci yeneen loolu nag la wax ne leneen ko yóbbee mooy film yu bon yi ñuy seetaan ak euh, yi ñuy tëgg ci biir mooy muy naadi lay wala malaax yi euh, euh, distron yi ñuy def naanukaay kaay sàngara dafa dem guddeeg dégg nga bois de yi ak jigéen ñi ni ñuy solo loolu dafay dem mun a sax ngànnaay yu bon yi ñuy xeex ngir mën a euh, réew yi bañ ko am ngir xeex bañ am nee na ngànnaay yooyu garaaw lii moo ko gën a garaw ngànnaay bii nga xam ne day rey nit ñi ba tax léeg nga dégg ñu ne diwkat dem na au lieu que mu takk jigéen mu dem jël moroomu góoram wala jigéen au lieu que mu waroon jël mu euh, góor mu dem jël moroomu jigéenam wa laa ñu bàyyi fi sax dem ci bàyyi yi film yu bon yi ñuy seetaan la. ak télévision yi ñu siifur di ci gis yoo xam ne ak yi ñuy dox ci mbedd mi kenn ku ne sa kër ñi waroon a muuru muuru ñi waroon solu sol solu jot soluñu ko ak photo yeeg image yooyu yëpp yàq nit ñi la loolu benn la ci indi feebaru euh, sëy yi am léegi ñaare ba lekk yi nga xam ne dañ koy lekk ñun africains yi surtout africains yi nga xam ne amuñu doole nga xam ne waxtu wu nekk banque mondiale la ñuy naj comme ni ma ko mën a waxee jéglu ci tudd gi mu tudd sax waaye comme ni ñu financé ñun suñu réew yi nga xam ne dañuy fex ba réew yi africain li ñuy lekk mu nekk euh, la ca baax day seer ba duñ ko mën a am ya ca baaxut day yomba yomb ba nga xam day yàq nit day yomb léegi nag ñu ñu liggéeyal ay ñam yoo xam ne dañ koy awande ci biti du ko indi yooyu bu koy lekk am na yu mu def suñu yoo xam ne daf ñuy puus ci ñu soxla day puus suñ cerveau yi suñu yuur yi ci suñu xel di nekk ci diggante waxtu nekk bu dee góor muy ne ci jigéen bu dee jigéen xelam day ne ci góor loolu tamit domaine bu yaatu la bokk ne ci leen di problème bi ba ci desaan mooy xeetu wéradi yu métti yi ñuy daal léegi wéradi yooyu tamit dafa siiwee lu bari ci wàllu néegu sëy parce que bu njëkk wéradi yooyu yëpp amutoon bu njëkk daanaka nit ñi daan takk ay ñeent soxna du am benn jafe-jafe bi amul njaboot di lépp mën nañoo dem ba téeméeraat problème du am booba dundin bi dafa baaxoon te feebar yi tamit amagutoon léegi nag feebar yi dafa bari feebar yu bëree bari day gaar nit ñi ba euh, problème mu néegu sëy yooyu jafe-jafe yooyu jàmm muy euh, am ci wàllu néegu sëy yi muy ak doxful jinsi faiblesse de sexuelle bi yi ko indi dafa bari Euh, euh, ba ca desaat mooy euh, comme ni ma ko waxee saaru wéradi yi nga xam ne yëpp am na léegi jamono jii siiti danay waral loolu nit ki néew dina ci wàllu léegu sëy wala dootu ko yëg wala mu am ci feebar ba buy sëy sax du yëg bànneex mu mu day dal góor waaye surtout jigéen ñi wala muy gaaw a yëg boppam wala mu dem ba yàgg sax xañ na nam doon yëge ci wàllu sëy dootu ko yëgati loolu siiti mën na koo def nit et murit mën na koo def nit euh, feebaru deret yii da koy def nit euh, xeetu euh, feebaru jabet jabet mooy feebaru sugure da koy def nit ak yeneen yu baree baree baree bari yooyu yëpp da koy def day tax mën naa dal nit ki ba loolu da am wala mu dem sax ba yaram yu bari acide te du yëg ni bari na acide wala yaram yu bari tooke muy posen wala ay microbate yooyu yëpp dana tax nit ki am jafé jafé ci wàllu néegu sey yooyu yep tam lu jara baye xel la comme niko ko xéti xeeti di defee ay yeneen ak yeneen yu yaatoo yaatu ba ci dessat moy waxtu yiñ koy def waxtu yo tamit borom xam xamé ñew ñëw nañ ci lu yaatu dañ ko wutal ay heure yo xamné nit ki dañu bëgg muy bu muy sey fekk mi ngi xif wala bu mu sey fekk mi ngi reg dafa war ne ci digg doom digg doom bi bu mu sey fekk mi ngi sonn bu sutu lol sonn nit ki day moo tax ñu tànn waxtu yi gën ci sëy borom xam-xam ne mooy su guddi gi xaajee ñetti xaaj biñ ko xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaju eh, bu mujj ba moo ci gën ndax day fekk séeréer sadid yi dal yaram yi dal coono yépp wàcc ndax li taskunoo ilayha la alquran waxoon ñu ne mooy kon te waloo maa sakna fi layli wan nahaari eh, guddi gi wa jax naa layla libaasan bu nit ki bëccëg gi dafay continuer di liggéey wala muy def ay kër kër guddi gi mu dallu lu yaram yi gëna dal nak sadi di gëna noppalu mo gën ci mom ci wàllu sëy bala ko bokkaan na ci jafé jafé yi moy sey lu bari li sey bu bari tamit man na tek nit ba dem ba lu mënoon du ko mën ndax yalla tam su bindee dunu nit ci fi mu juddo ba fami amé témat lu ci nek fam état par état ni nga xamé né lepp mënu ko ben yoon ba bisat na lu wara ñëw so bëggé nak li nga waron dund ci nekk da ngay dem ba jéxal la nga waron dund ci ay 40 ans jëm kaw 50 ans 60 ans ba boo ko defee sang ndaw euh, di sëy lu bari mën naa indi jafe-jafe boobu ndax fuqahaa yi dañoo laaj euh, imam Malik ibnu Anas ci wàllu googu ci benn jotaay bu mu doon jàngale ca ca jamono bi mu nekkee Madina ñu wax ko ci wàllu néegu sëy mu ne leen fa innahu muqun li saaxi wa nuurun lil wajhi fa aqlil minhu aw aksir maanaam ni ci jub rek bu fekkee nit ki ndax doomu aadama bu ni ko yàlla bindee yàlla ni bind nit moo war waral mu koy aajowoo su ko aajowoo def ko dara newu ci su ko defee mu def ko ci anam gañ ko gëm gëm gënee dara newu ci yaramam feex loolu mën naa indi nit ki lu bëri ndax ñàkk gi def moom day ay tawat ñàkk gi def ay tawat day indi ak yeneen yeneen waaye tamit def gi ëpp tamit musiba la moo taxoon imaam di wax loolu xam ne leen euh, day euh, ñaari ñaari yooyu mu ci yëpp lu ci am na ci wàllu néegu sëy mooy coono bu bu yàlla di roof nit su ko defee coono ba dañ yaramam féex loolu dana tax yaram yi li war a daw ndox yi di daw euh, deret ji war a daw di daw coono bi ci nekkoon dañ su ko deful nag mën naa dem indi ko ay moo tax mu ne fa innahu muqun li saaxi ni mu mel ci moom sëy mi ngi mel ni jour ni mu amee solo ci yax leer ni mu amee solo ci xarkaan loolu rek la jublu misaal waaye jublu tax fu ñu toll ñu sëgg ci di dem di dem <laughs> kon xeet yu baree bari mooy waral xeeti feebar yooyu léegi nag ci composé bi ndax xëy na tamit garab yi koy faj bari na ci xeet